ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa di ko ñaanal jàmm moom ak i sahabaam ak lahu bi ihsanin ila yawmi di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ci ñaan yàlla mu jéggal ñu mbooleem suñuy njuumte waaye lépp loo xam jëf ju baax la mu xéewalee ñu ko yàlla nanu ko defal suñu miisaanu xasana li nu wara a waxtaane tey muy waqfatu taamul min qissati maryam ummil masih muy taxaw seetlu bu ñu war a mën a taxaw seetlu ci dundu mariam maryam mooy kan mooy ummul masih mooy yaayu isa ibn Maryam mbokk yi ci yàlla premier yoon ci taarixu mbindeef benn yoon rekk lañ ci gis ab yonent bu ñu askanalee ndey kenn askanale ko bàyyi mu mel ni loolu su amoon ci niti ordinaire du neex a bu doon Isa dafa judd rek nekk nitu ordinaire kon du neex a dara dara dara ndax li nu xam ci cosaan mooy ku am ndey day am baay Isa alayhi salaam ñëw. changer règle boobu ci doxaliinu borom bi ñu naan Isa ibn Maryam muy Isa doomi Maryam mu mel ni bu doon ci suñu aada dañu naan amul sant ndax sant ci néegu bàyyi lañ koy jële waaye dàkkantalam mooy yaayam muy Maryam Maryam nekk jigéen ju am pastif lool waaye am daraja yu kawe yoo xam ni benn jigéen musu am ci àddina daraja yi Maryam am alayha salaam benn jigéen musu am ci àdduna bi yëpp Mariam am doom te amul borom kër loolu xam ngeen ni mbir la ñaareel bi nekk jànq am doom loolu kenn mësu ko gis buñ nekk jànq am doom mooy musul ànd ak góor kon ba tey mi ngi dese ak njànqam kon jànqam min ko dese moo tax ñu naan ko Maryamul Azra léeg-léeg ñu ne Maryamul Batul mooy jigéen ji musul séq ak góor te am doom bu dee ci ñun bépp jigéen bu am doom day séq ak góor kon kenn dootu ko woowee jànq kon am doom te xamuloo góor ci taarixu bashariya kenn moo ko am muy Mariam Mariam moomu bokk na ci li ñuy jàngat ci moom hiya taqiyatu naqiya jigéen ju ragal yàlla la dina feeñ ci kanam waaye ku set wecc la yàlla subhaanahu wa taala da koo tànn kon istafaha allah min bayni nisaai alaalamin borom bi dafa tànn Maryam ci mbooleem jigéeni addina bi mën nga ni moom rek la yàlla tànn ci jigéeni addina bi ndax alquran da ko yaxal te yàlla moo ko ni man maa la tànn ci mbooleem jigéeni adduna bi mbooleem jigéeni adduna bi nag ndax dafay tënku ci jamonoom moom rekk wala day yóbbu jamono yépp ala kulli xaal li wér mooy dafay yóbbu jamono yépp ndax Qur'an la bu ñuy jàng ba waxtu wii nu toll li tax yàlla tànn ko da koo tànn ngir dénk ko secret boo xam ni mën naa lëmbee jamono te yàlla buy jël secret di ko dénkaane magasin ba mu koy dénk day nekk magasin bu sécurisé wu. kon xam na ni lii muy waaje a dénk Maryam Maryam attan na ko loolu moo tax mu dénk ko secret bu mag boobu nga xam ni hiya azamu miladin wa aysar haml dénk ko juddug liir bi gën a rëy ci jamonoom waaye ëmb bi gën oyof ci àdduna ñu koy gis ëmb Mariam la amul benn ëmb bu nuy gis lu dul dana yóbbu ay weer li gëna siiw dana yóbbu juróom-ñeenti weer su tuutee ba tuuti mën naa yóbbu juróom-benn weer waaye ëmb boo xam ni boroom daa ëmb rekk imbi benn jigéen moo ko am ci àdduna muy maryamul azra bépp jur doom bu nit di am doom assisté nañ la dimbale la ba mu des maryam maryam moo ëmb léegi wasin léegi set léegi loolu tamit bokk na ci keemaan yi ñu ci mën a jàngate jigéen bu amoon doom li gën a gàtt li ci gën a gàtt mooy ci bis bi dana ànd ak nifaas muy meretam muy deret bi muy àndal waaye mariyam dafa am doom léegi seet léegi nekkaat jànq léegi dara changé wul ci dundam Mariam boobu mooy mariyam ibnata Imran Mariam ibnata Imran Mariam kan mooy yaayam Hanna bintu Faxuud moojur jur Maryam moom Maryam yaayam ñu ngi koy woowee Hannatu Hanna bintu Faxuuz Hanna moomu balaa ñoo dugg ci mbiram mooy dafa am ñaari Maryam ci taarix am ñaari imran idan fa ayul ñaari maryam yi ban maryam la ñu jublu tey ngir suñu jotaay bii te ñaari maryam yëpp ibnata imran la ñaari maryam yëpp ibnata imran kon nuroo nañ ci tur ba pare nuroo ci turu wayjur góor ba pare nuroo encore ci famille te effectivement famille bi benn la dafa càllaloo mais famille bi benn la dafa am Mariam uxtu Moussa xam ngeen ni Moussa papam nu mu tudd du Imran Moussa am mag bu jigéen mu tudd Mariam bi ko yaayam tegee ci géej gi Moussa di dem. dafa woo mag gi Maryam ne ko qussiihi topp ko kon kooku mariyam la ibnata Imran la beneen bi Maryam bi ñu jublu moom it ibnata Imran la waaye ayul ni encore ñaar imran yi ban la ci kenn ku nekk ci ñoom ñaar imran la tudd imran bàyyi Moussa la shakka moom moo mag Imran bàyyi Mariam waaye benn famille la famille bu ñu barkel la càlla lekk barkeel googu moom la borom bi subhanahu wa taala topp ba génn ci keemaan yi borom baa ngi wax ni baada audu billahi min alshaytani arrajim inna allaha astafa adama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin durriyatan baaduha min baad wallahu samiun alim mariam dafa bokk ci famille bu tedd famille bu ñu respecté comme ni Moussa bokkee ci famille bu tedd bu ñu respecté borom bi nee na dafa tànn aadam tànn nuux tànn aalu ibrahim aalu ibrahim mooy njabootu yonent yàlla ibrahim mooy li tàmbalee ci ibrahim jaar ci ishaq ba ci ñoom moussa yépp même famille bi la ibrahim moo leen meññ daanaka Ibrahim moo meññ li tàmbale ci Ismaïl ba ci Muhammad sallallahu alayhi wa kon waa Ibrahim kon borom bi tànn na aalu Ibrahim mu tekki ne waa aala Imraana ala alaalamin nee mu tànn aalu Imraan ci biir mbindeef yépp kon imran famille bu nu la. ndax Muusa alayhi salaam génn na ci ak Haroun waaye Maryam génn na ci ndax ñoo bokk jamono déedéet ñoom bokkuñu jamono Maryam jamonoom mi ngi gën a jege jamono yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa ndax bu leen fàtte ni moom mooy meññi Isa alayhi salaam Maryam dafa jamonoon yonent yàlla yaxya jamononteeg isa waaye jamononteeg zakariya te zakariya salaam moo koy yar papay mariam imran dafa am soxna bu ñuy woowee xanna mooy xanna bintu faxuuz xanna nekk jigéen boo xam ni du am doom sëy na lu yàgg amul doom waaye comme jigéen ju baax la te xam na ni yàlla mooy maye muy def li ko yàllay sant tey ñaan doom loolu buntu la ci bépp jigéen guy sëy te amul doom bunt bi jiitu mooy di ñaan sa waaye bokk na it nag ci buntu ñaanit nizar nizar mooy ñaan bu ànd ak condition yow yàlla soo ma mayee nangam dinaa def nangam nizar boo ko xësee ba def day nekk wareef ci yow maanaam jigéen ji amul doom ne yàlla bis boo ma mayee doom danaa woor weer wala danaa leexal nangami miskin walla danaa def nangam loolu nga xës ba wax bis bu la yàlla mayee doom day nekk laazim ci yow nga def ko kon xam nañ ñi ndeke xanna faqiha la yaayu Maryam jigéen ju ñor la bu xam diineem nizar boobu mu def boo xoolee ñi baax ñépp lu ñuy mës nizar dañ koo matal moo tax borom bi di leen tàgg ne yuufuuna bi nadr wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira lépp lu ñu nizar ci yàlla danañ ko matal ngir ragal bu ñuy ragal bis bu métti boobu di yawmal qiyaama kon soo nee yàlla boo ma defalee nangam ma def nangam loole nekk na farata sa kaw kon nag na bëgg na doom waaye amul doom taxul mu bàyyi mi ngi ñaan beneen bi mooy na yaayi mariyam rakkam bu jigéen. mooy jabaru yonent yàlla Zakariya rakkam bu jigéen mooy jabaru yonent yàlla Zakariya te moom it amul doom ndax Zakariya sëy moom li yàgg amul doom ba dégg ngeen li Zakariya wax borom bi washtaala rasi shayba walam aku bi duaika rabbi shaqiya wa inni xiftu lmawaliya min warai kon moom rakkam fële ma ngay sëy amagul doom moom it mi ngi ci sëy amul doom waaye imraan bii nekk bàyyi Mariam dafa génnoon dem xare ci li borom xam-xam yi wax mu gaañu foofu bi mu gaañoo foofu nag yàlla dogal Hanna dem ba yàgg mu yëg ni. li mu doon ñaan yàlla am na mooy ëmb la doon ñaan yàlla am doom te dafa am lu mu waxoon te li mu waxoon mooy rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fa taqabbal minni yàlla day lii ci sama biir bii nidar naa te dogu naa ni su juddoo danañ ko goreel muharraran lan mooy danañ ko goreel mooy bu dee góor du nekk góoru kër di liggéey ci kër gi su dee jigéen la même waaye moom ci biir misaram danga nga ciy comprendre ni góor la yéene góor la bëggoon inni nazartu laka ma fi batni muharraran ay muharraran lil masjid li may jur bu doonee góor ñu may ko jàkka ji mu nekk xaadimul masjid di jàng di bala jàkka ji di toppatoo jàkka ji di defar jàkka ji ndax jàkka mooy néegu yàlla xayru biqaayil ard masajiduha pàkk bi gën ci kaw suuf mooy jàkka yi kon xale bi ma namm su ma ko amee mooy danañ ko goreel pour jàkka ji ba pare na yàlla fa taqabbal minni innaka anta samiul alim yow yàlla li may ñaan maa ngi ñaan nga nangul ma ko ndax da nga dégg yow yàlla te xam nga wax di li muy tekki mooy li mu bëgg xam na ni borom bi mën na ko dem ba yàlla dogal mu wasin wasin na te am na lu mu waxoon te ba mu koy wax mook boroomam rekk la woon xale bi juddu mu xool xale bi muy jigéen ndeysaan mu bëgg a ndax moom góor la yéene jigéen lañu ko may borom bi daf koy jàngal di ñu jàngal ni yow nit li nga bëgg du ci kii rek la nekk man maa xam fi mu nekk kon booy ñaan yàlla ñaanal lu baax boo ñaan yaaram ne ko yàlla may ma doom ju góor ju baax déedéet may ma doom ju baax rek ndax jigéen dana baax boroom bu góor comme góor dana baax kon borom bi da koo bëgg wan ne ko mbaax du ci góor rek lay tënku mais mbaax mi ngi tënku ci kii def li neex yàlla subhanahu wa taala foofu la mbaax di dellu kon képp kuy jigéen war ngaa yëg ni mbaax góor ñi moomuñ ko mbaax ñépp ñoo ko bokk te képp koo xamante ni wagasu nga pour baax incha allah ñëpp danañ xam ni ku baax nga moo tax borom bi ne fa lamma wadaatha qalat rabbi inni wadaatuha untha wallahu alamu bima wadaat wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha mariam aa yàlla li ma wasin nii day jigéen la waaw moom ndax ki muy waxal xamul li mu doon ah kay waaye nag day xaw a am kersa ndax la mu bëggoon du lii yaakaar na ni li mu bëgg góor a ko mën ndax it nag ci xam nañ ni góor moo doon nekk ci jàkka waaye du jigéen moo tax qaalat rabbi inni wadaatuha unsa yàlla ah wasin naa de waaye jigéen laa gis borom bi ne ko wallahu aalam bi ma wadaat li nga wasin yàllaa la ko gën a xam ndax moo la ko may kon yow li nga bëgg mooy góor gu baax guy na ci jàkka man ma tànn jigéen ju baax juy na ci jàkka ndax mu nekk première jigéen buy dëkkee jàkka ndax jigéen daawul jëkkee jàkka xamuñ ko woon moo tax borom bi ne wallahu aalam bi ma wadaat ne ko te na walaysa zakaru kal unsa am na ci borom xam-xam ñu ne walaysa zakaru kal unsa waxu xanna la mais ala kulli li wér mooy waxu borom bi la même bu nekkee xalaatu xanna it ndax xanna li mu jublu mooy góor ak jigéen bokkuñu mooy góor moo mën a féete ci jàkka sax fa waaye jigéen mënu ko mooy walaysa zakaru kal unsa ñii ñu ne déedéet walaysa zakaru kal unsa mooy góor jigéen tolloowuñu kattan waaye jigéen mën na ci jàkka lu góor mënul jigéen mën na ci jàkka lu góor mënul léegi ñetteelu mbir bi nga gis ni ndeke jigéen mën naa tudd doom jigéen day tudd doom ñun suñu société yi dañoo jàpp ni góor rek mooy tudd waaye tudd doom jox tur la rek mooy nodd jox ko tur bi xale bi juddoo nga tokkantal toqantal mooy jël tàndarma yéy ko ba mu mokk jël sa baaraamu sànqalañ bi bomb ko ci sa làmmiñ ba mu takk ci tàndarma bi nga bomb ko ci làmmiñu xale bi loolu mooy technique moom la yonente bi sallallahu alayhi wa doon defal juddu bees yi liir bu ñu ko indil rek sallallahu alayhi wa mu yéy tàndarma def ci baaraamam def ko ci làmmiñu xale bi wax bismillah xale bi li muy njëkk a mos ci kaw suuf tàndarma lay doon ndax tàndarma dafa teey ñaareel bi tàndarma dafa neex moom lay njëkk a mos bu loolu amul mu doog a def ndox waaye yonent bi nekk fi woon ku judd ñëw mu jël àll bi bindal la ab saar ñu fomp ko jox la ndox mi nga naan déedéet loolu ñun ñoo koy def ñun ñoo xam ci diine ji lu kenn xamul ñun moom ku judd rek ñu bindal la ay saar bomb la jox yaa ji raxasal ween bi jox ko mu naan nangam nangam déedéet mais ki yàlla yónni mu gën ñoo xam moom tàndarma la doon def su ko yëyee tàllal làmmiñam bomb ko ci bomb ko ci gémmiñu li loolu mooy technique ginnaaw boobu mu noddal ko boo ko noddalee jox ko turu jeex na mu def ñu rayal ko gàtt kon moo tax xam na ne wa inni sammaytuha mariyam yàlla xale bii day tudde naa ko Maryam Maryam hiya al aabida ci seen làkk mooy Maryam mooy jaamukatu yàlla gis nga tur lu am solo la ci dund nit bu ko kenn kenn xeet su ngeen déggee olof di wax naan kuñ la tuddee nga jël ci moom xaw ma juróom-ñaari jikko xaw ma juróom jikko di ko jël ci moom parce que tur daam solo tur day wuyu borom képp ko gis mu nekk bandi rek jàngal turam gis nga bandi bu naree doon bandi bu turam baaxee dana ko changé bu dee Ousseynou mu ne Ousseyn bu dee mar mu ne Omzo parce que xam na ni Umar ànd àndul ak jikkoy bandi il faut mu changer Omzo walla mu changer turam mu changer ay alias nangam waaw waaw Ibrahim alias <laughs> jim si xaw ma nan parce que mbon a ko neex mais Ibrahim moom àndul ak mbon ndax bu génnee léegi ñu jàpp ko ñu ne Ibrahim la tudd ñu ni i waay moo tax day changer lool kon tur dafa am solo ci dund moo tax mu tuddee ko jaamukatu yàlla wa inni mariam Maryam ba pare ñaan yàlla lu am solo wa inni uiduha bika wa durriyataha min alcheytan irrajim ne ko yàlla sama doom ji maa ngi koy muslul ci yow cheytaane ndax kat koo jaamukatu yàlla cheytaane du ko bàyyi kon maa ngi ñaan yàlla musal ko ci seytaane sa doom nag boo bëggee yàlla musal ko ci seytaane yaa koy njëkk a musal ci seytaane waaye nga am doom tuddee ko Muhammad wala Isa wala Ibrahim teg ñaari baaful musique ñu yendoo tëgg ak fecc ba ngoon nu liir bi tudd Muhammad ku ñu ko tuddee Isa ku ñu ko tuddee muusa di tëgg di fecc rek yaay yi fecc baay yi fecc bàjjen yi fecc ñu ne xale bi dañoo bëgg muslu ci seytaane déedéet xale bi keroog lañu ko jël jébbal ko iblis keroog ba ñu koy ngénte teg ay seenaa musique keroog lañ ni Muhammad xale bi amoo ci dara kii moom bàyyi ko mu dem ànd ak iblis fa la bokk kon sa doom fexeel ba teg ko ci raay bu baax mooy muslul ko yàlla ci seytaan di ko noddal waaye léeg-léeg nga di ko musul ci seytaane ndax ñaari mbir a ngi di ñëw ci seytaane lay jaar te moo gën a bon ci xale muy cat làmmiñ ak bët jigut liir moo tax xale bu feebaroon ñu indil ko yonent bi rek lu muy wax aiduka bi kalimati llahi tammati min kulli sheytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma maa ngi lay mus muslul yàlla yow liir bi ci bépp seytaane ak ñoñam ak bët ak làmmiñ loolu mooy jàpp xal ñun nag ñu ne déedéet xale bi boo bëggee mu mucc ci làmmiñ takkal ko caq bu ngande defal ko ci boggal boggal mooy per bu mag bi nekk ci diggante bi léeg-léeg da nga per bi fett ñu naan làmmiñ yi mooy fet waaw per bi daa mel ni anti missile la waaw moom moom mooy daaneel làmmiñ yi fekk déedéet làmmiñ li koy dindi mooy li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam aiduka bi kalimatillahi tammati yow kat maa ngi lay musul ci kàddu yàlla yu mat yi min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin làmm yonent bi daawul takkal xale gàllaaj daaw ko takkal xaaw daaw ko takkal béjjën daaw ko takkal pettaaw yii yëpp mënuñ ci xale bi dara pettaaw bi bu amoon njëriñ duñ ko reeree ca ceebu keccab ba kon mënul xale bi dara buum yi amut njëriñ bant yi ñuy jël di ko tegtal xale yi bant bi bu amoon njëriñ du daggee ca garab ba kon xale bi muslul ko yàlla looloo koy dimbale mais amut leneen looloo koy dimbale mais amut leneen kon nag mu ne yàlla maa ngi muslul yàlla xale bii ma jur ci seytaane mu mel ni rek boo jàngatee day mel ni na dafa xawoon a xam lii ñëw te xamu ko mooy maa ngi muslul yàlla xale bii ci seytaane ak njaboot ga mu nar a Mariam mi ak njaboot ba mu nar a am maa ngi muslul yàlla seytaane ci ñoom seytaane nag ku ñu jam la waaye ku mën a yàqal gis nga ñaan bi bi mu ko ñaanee borom bi ne ko nangul naa la ñaan ndax charte yi tax ñu nangu ñaan dafa daje ci moom soo bëggee sa ñaan di nangu fexeel li ngay lekk mu lew te dagan de lekk lu lew te dagan ñam lu mu neex neex neex bu lewut daganut baaxut poson la ngalawaay rafetut ñam gi bu mu la dugal ci nga ut lu xaram sa doom waroo ko jox ñam bu xaram sa jabar waroo ko jox dépense lu xaram war ngaa ragal yàlla ci dépense bi nga jox sa jabar mais dem triande ñëw joxe dépense dem loterie ñëw joxe dépense gañe takkam takam joxe dépense agressé joxe dépense sàcc xaalisu jàmbur joxe dépense jaay sàngara joxe dépense yaa ngi contaminé sa njaboot. yaa ngi leen di dugal ci créneau boo xam ne yaa ngi leen di lor ndax li nga leen di jox ñu koy lekk xaraam na day nekk poson ci seen biir moo tax njaboot gi dañuy dëkkee feebar ñii di jàng duñu xam dara nekk ci ay jafe-jafe su ko defee nga naan sama njaboot kenn wérul man affaire yi nangam fekk yow yaa leen wéradil yaa jël alal bu lewut jox leen ko yaa jël naan bu lewut jox leen ko jabar ji biñ la koy may kër jàmbur la jóge fexeel ba dee ko jox lu ba tax saxaabiyaat yi lu ñu daan wax seen borom kër yi bu ñuy xëyee ku ci sa jëkkër di xëy dañ koy gunge ba ci biti nekkoon ko nijaay naa mu ne ko ragalal yàlla ci ñun ñun demuñu fenn fii la ñu toog góorgóorlul ba li nga ñuy indil ñu koy lekk na nekk lu lew ma ne ah wuute na ak suñuy jigéen de suñuy jigéen moom indil rek lañ lay wax boo nee masaakit mu ne ah non mën ngaa rëcc ci yàlla baax na du ñu la encouragé ci nga indi lu teey lu dagan mais li ñu bëgg mooy lu fës naañ bi neex na reer bi neex nañu invité nit ñi na nit ñi ñëw nañu jaagar jaagar yi nañu wane ni kër gi nangam nangam la fekk li ñu koy defee ndax dagan na du ko xalaat mukk kon fexeel ba nga encouragé ci sa jëkkër même bu liggéeyi woon am lu dul 1000 francs 1000 francs boobu mu lew moo gën mu jox la ko dépense togg ci sombi mbaam bu xam sa sax moo gën mu jox la xaalis bu bari nga togg ci leneen te fekk lu bon la li ngay naan na lew ndax jëmm ji ñaan buy tàllal yàllay loxo li muy lekk ci lay ñaanee beneen bi li ngay sol na nekk col gu lew maanaam lekk bi naan bi sol bi yow jigéen ji baal loolu xel soo buggee doom bu barkeel sëy bu barkeel ñaan yàlla gërëm la mooy fexeel ba ñett yi teel ko sa bopp mooy fexeel ba looy lekk nang ko mën a layal xam nga sunu mag ñi léeg-léeg nga dégg kuñ ciy tàgg ci mbaax mais da xam ni moytu rek moo leen ci dugal moytu mooy demoon a dem ba ñam boo xamul fu mu jógee bu ñu la ko joxee doo ko lekk lan may tax xadaran min an taakula al xaram daw rek ngir lekk lu xaram dañu daan dem ba kenn ku ci nekk ci ñoom looy lekk yaa koy liggéeyal sa bopp ndax li nga ñaqal sa bopp mën nga koo layal mais li nga ñaqalul sa bopp mënoo koo layal xiif du rey ñoom noonu lañu ñu jàngee na àdduna xiif du rey fexe woon nañ ba li ñuy lekk mu dagan moo tax buñ ne allah yàlla nangul leen koo dégg ñu ne la ñaanam dafa nangu rek xamal ni mucc na ci ñett yi fexe na ba du lekk lu xaraam du naan lu xaraam du sol lu xaram góor ak jigéen ñoo ci yem yéen ñaar bu ngeen bëggee kër gu doom yi baax fexeel ba yow góor gi luy ut na dagal bu mu nekk mukk même kër gi ngay dugal sa jab njaboot mu ciy dëkk fexeel moytul bu mu nekk kër goo xam ni danga leb banque xaalis dugal ci say doom soo ko defee def nga musiba de amul benn bunt bu islaam may nit yombal la nga def pré banque tabax kër islaam mayu ko kenn yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat yàlla nee na lépp lu am riba dinaa ci tëgg kurpeñ mu daan lu kër gi rafet rafet bis dana ñëw kër gi toroxal la mbaa bis ñëw ñu wooyu huissier génn say bagage yépp nga torox ci mbedd mi parce que yamhaqu llahu riba dëkkuwaay du dara kër gu rafet du dara oto bu rafet du dara boo sonnee ba ut ko ci ay prêt bancaire ut ko ci utin bu xaraam bis dana ñëw nga jooy ba cëg kon moytul loolu yow jigéen ji bul encouragé sa jëkkër ci lu xaraam mais fexe leen ba li ngeen di lekk na dagan gis nga bu daganee lu dagan mooy indi barke yéen ñëpp da ngeen di ànd ak wér am barke nekk jaamu ko te yàlla xanaa xamoo jëmm juy lekk lu lew day oyof pour julli day oyof pour woor day oyof pour jaamu yàlla mais jëmm buy lekk lu xaraam day diis koo gis julli te ko li muy lekk du lu lew koo gis bu ñu nee julli yaramam diis man sama yaram day diis su ma bëggee julli du ma mën a jóg su ma tëddee ci lal bi dañu may bës waaw waaw xam nga lan moo tax alladina yakuluuna riba laa yaqumuuna illa kama yaqumu alladi yataxabatuhu shaytaanu min almas borom bi ne ñiy lekk riba duñu mën a jóg taxaw dañuy mel ni ñu piqué crise ci àdduna àllaaxira mu dal leen siraat yataxabatu cheytaanu min al mas di dàjjat dàjjat di daanu loolu moo tax soo toogee ba sentir sa yaram di diis bu ñu nee jaamu yàlla nga diis tiital ci sa bopp demal nga vérifier lan ngay lekk lan ngay naan moo tax borom bi ne fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan allahu akbar borom bi ne ma nangul ko ñaan ci nangu bu rafet yàlla nañu yàlla di nangul suñuy ñaan allahu akbar fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa ambataha nabatan hasana yàlla ne ma meññal ko meññant bu rafet meññant bu rafet mooy moom Maryam day meññ ku mel ni Isa alayhi salaam kon soxna si li mu ñaanoon yàlla yàlla may na ko <coughs> léegi nag <coughs> comme chartaliwul woon ci nidar bi ndax newul woon yàlla sama biir bi lii ci nekk bu dee góor dinaa ko jox jàkka mais dafa ni rek nazartu laka maa fi batni muharraran lii ci sama biir bi nidar naa ko ah li ci biir bi nag góor la jigéen amatu ci sartu kon maadaama loolu am na kon nag jox jàkka ja rek moo fi sës léegi indi nañu Mariam judd na téye na ko toppatoo na ko defar na ko waaye indi ko baytil maqdis la ko indi mooy jàkka ba nga xamante ni fa la ñu dëkk ca Filastin muy baytil maqdis bi ko Mariam inde ki nekk imaamu jàkka ji mooy yonent jamono boobu muy Zakariya bi mu ko indee ne jàkka ji kat sama doom ji dama waxoon yàlla su juddoo dama koy may jàkka ji loolu la waxoon su juddoo dama koy may jàkka ji maa ngi lay bàyyiloo xel yow jigéen dafa am sew-sew bu nekk fii xam na lan moo ko may mu mën a jël doomam jox ko jàkka xam nga lan moo ko ko may mooy borom këram dundatul kon moo am responsabilité ci doom ji waaye nag yow mënoo fee nekk di sëy ba pare jël sa doom ne dama koy may jàkka doom ji moomu ko baayam mi ngi fi pour loolu am na fekk yàgg baayam ngeen dëppoo ci su ma juree doom day dem daara day jàngi waaw mais waxtaan ceeg baayam su baayam nangoo xayru xayru ngalawaay li dal jamono ji bu mun a dal bul ni mukk sama doom du jàng diine waaw ñu bëri léeg nga gis couple buy xeex bàyyi ji dafa ni day yóbbu doom ji internat da koy yóbbu daara yaay ji bañ waaw yaay ji bañ góorgóorlul ba naxanteel ak sa jëkkër waaye sa doom na dem jàng diine même buy jàng àdduna na ci diine bokk diina moo njëkk te mooy mujj diina moo njëkk mooy bi nga amee doom demuñu église ba woote de demuñu école ba woote dañuy ana imaamu jàkka kon diina moo njëkk jouru ngénte bi bi tudd jotee loolu la ñu wax kon bu ko xañ diine soo xañee sa doom diine nag wax naa la diine njëkk te muy mujj bis bu ñu yuuxoo ni dee na xel yëpp imam lay daj xel yëpp imam lay daj lan moo tax dajul professeur ba ca classe ba dajul docteur ba ca hôpital ba dajul président de la république dajul premier ministre lu tax parce que diine njëkkoonte muy mujj imam ba la ñuy woowi ku ñëw ne ah, yàlla de jël na ko kon diine mooy njëkk diine mujj bul xañ sa doom diine yëgal ni sa doom boo ko dénkee sa borom mu teel la ko su màggee respecté la amul benn xale bu ñuy yar ci diine mu jàng diine xëy di saaga papaam ak yaayam man gisaguma ko gisaguma kon doom boo ko jàngalee diine li muy njëkk a xam mooy ne wayjur du morom loolu la njëkk jàng kon joxal sa doom diine waaw yaa bunayya aqimi salaa wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar ay sama doom del taxawal julli del taxawal julli doom ju ñu yar ci julli soo bëggee sa doom baax yow jigéen bis bu amee juróom ñaari at commencé koo jàngal jàpp booy jàpp woo ko mu toog sa wet utal ko satala bu ndaw sottil ko ci ndox del jàpp bàyyi ko muy caxat-caxatee ndox mi mu lay xool ngay jàpp sooy julli yow yaa ji xëcc ko mu ñëw taxaw sa wet muy julli bépp yaay ju baax balaa doomam am 10 ans mën julli mën jàpp bépp jigéen ju baax balaa doomam am 10 ans dana mën jàpp dana mën julli lan moo tax parce que ci loolu la koy forme mooy ki la yàlla jox delloo nga ko yàlla kon jigéen na fexe ba xam ni mooy yar su yaree bu baaxee mooy jëriñoo su bonee mooy jëriñoo moo tax gisoo xale yu góor yi bu ñuy saaga lu ñuy wax damay moom ndey rek ngay dégg kon bépp yaay ju bañ ñu ne damay tudd la fexeel ba doom ji nga teg ko ci yoon wu baax dee ko jàngal tudd yàlla dee ko jàngal askar moytul di saaga ci wetam moytul di xuloog pàppam ci wetam moytul di fen ci wetam moytul di jànn ci wetam moytul di xool lu xaram ci wetam moytu ko ndax xale bande magnétique bu bees tàq la day enregistré lu muy gis da koy mokkal kon looy def yow jigéen ji defal ak ragal yàlla ci wetam booy tudd yàlla da ko def ci wetam da ngay dégg xale bi da koy daal di mën gisoo way bu la gën a nekk wayu caaxaan liir yi ñuy ñi ñuy nàmpal mokkal nañ ko kon bu doon lu baax ngay wax ci wetam dana ko mokkal kon yow yaay fexeel ba xam ni ku ñulug sa jëkkër yàq sa doom gis nga sa jëkkër ni mel ci yow sa doom noonu lay mel copie ni nga bëgg sa doom mel ko ko ci baayam soo bëggee sa doom gën ci koñ bi gënal ci koñ bi soo bëggee sa doom nekk borom xam-xam jub jubal ci kanamu pàppam soo bëggee sa doom nekk ku ragal yàlla ragalal yàlla ci baayam ak li yàlla sant nga xool yàlla inna allaha la yudiu amalal yàlla du sànq jëfuk aji jëf moo tax borom bi ne wa ambataha nabatan xasana Maryam nekk meññeent mu baax bi ñu ko indee ci jàkka ji ñu woote yàlla jàkka ji day indil nañ ko benn kado benn sarax ñu ne lan la ñu ne xale ah jël xale sarax jàkka moom xam naa ne ñun suñu aada bokkagu ci may nañ ko jàkka ji ah magi jàkka ji tàmbalee xuloo kenn ku ne na maa koy yar bi ñu xuloo ayyuhum yakfulu Maryam kenn ku ne ne maa koy yar gis nga problème jàkka yi jafe-jafe bu am imaam a koy yenu waaye bu neex neex ñëwee ñu ne ko du yow rek moo ne ci jàkka yi de bu julli jotee ñu woo mu ñëw su tardé ñëpp kaas pourquoi imam du tardé dafa mën a dox te nga ñuy kaas dañuy liggéey ne ñëw toog mais imam bu tardé ñëpp kaas su néew ñëwee ci jàkka ji <laughs> ñu ne imam baa ngóog su sang néew jotee ñu ne sangal mu sang bu ñu fi indee 10 millions paa ku nekk def seddoo ci digg bi yoon ah, ah du ngeen gore comme jox ngeen imam ñi dee ñi yëpp kay bu 10 millions ñëwee jox leen ko imam waaye bu 5 million ñëwee coow commencé am ci jàkka ji ba ñu koy rëdd fii laa nekkoon fekk woon naa réunion bi nangam nangam xaalis jàkka yëpp moo ko tas. xanaa xamoo jàkka yi ëpp problème ci jamono yi Ablaye Wade la bi mu tàmbalee jàkka ju nekk mu may la ab ab 100 millions histoire yi tàmbale ñu bari jóg pour nekk imam comme bu dee 100 millions yi yaa koy recevoir léegi nag gars yi xëccoo ñu ne ayyuhum yakfulu Mariam kan mooy yar Mariam ah ñoom de li ñu xëccoo lu baax la ku koy yar ñu ne waaw candidat yi bëri na nu ñuy def yaa xanaa ñu loterie ñu loterie. loterie bi mooy kenn ku nekk na jël benn bant def ci xàmmekaay ñu sànni ko ci dee géej gi buñ ko ci sànnee bant bu taxaw rek yow la ñu dajale bant yëpp jox benn nit mu sànni bu Zakaria taxaw ñenn ñu kaas non non maanaam du ma ci ah, en affaire dañ ko kii na keneen sànni keneen sànni bu Zakaria taxaw keneen kaasaat ñu sànniwaat mu taxaw ñu naan ah, neexut ba neexut Zakaria moo ko war a yàq xam nga xëccoo waru woon am comme jàkka ja la ñu jox xale bi dañoo waroon bàyyi imam yar ko rek coow bañ am fa kafaliha zakariya zakariya jël ko wa tawalla bi tarbiyatiha pare nag ngir nar koo yar ngir ñaari mbir zakariya yonenti la ñaareel bi jabaru zakariya tantay mariam xaqan la ndax rakku yaayam la ñoo bokk ndey ak baay loolu chance la gis jigéen du yar ku mu jurul yombut jigéen du ragal yàlla dong mooy bëgg doom ju mu jurul olof nee na jigéen ñaar rek la bëgg ñu baal mana nag kan la bëgg ñu ne boppam ak kan mën a doomam ku dul ñoom bokkoo lu mu baax baax baax ci yow bu doomam màggee baax ga wàññiku na illa xali lu dul lu néew kon nag kee dina sawar yar ko ndax rakku yaayam la tàntam lay doon kii dana ko yar ci wàllu diine ndax bàyyi la ci moom te yonent la mu yar ko ci lan war a du adduna nit boo koy yar da koy xamal ni adduna bi du dara ku fi nekk di nga lekk di nga naan lekk yi mën na wute nag waaye ñépp koy def ñépp koy si ndax yi sax dañuy lekk si ndax du fande mukk unku yi sax dañuy lekk kon lekk jarul sonal sa bopp ñépp koy def wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi amul benn luy yukkat ci kaw suuf lu dul yàlla nee na war lu wërsëgam te danaa ko ko jox kon ñëppay mu yar ko ci dëddu àdduna yar ko ci fegu ak ragal yàlla ci loolu la ñu yar Mariam nekk ci jàkka ji di julli di bala jàkka ji di defar di tudd yàlla Zakaria di ko jox ay tur yu muy tuddee yàlla di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala di jàngaale tawraat mu nekk fa jàng na tawraat ba xam ci dara Zakaria ndeysaan dugg na juróom-ñett fukki at ak nangam amul doom waaye toujours su jullee ba pare rek ñaan yàlla da ko rabbi inni xiftul mawaliya min warai ay yàlla yàlla ragal naa ku may doon sama gannaaw li tax a ragal Zakaria mooy bu fi jógee xam na ni ñeneen ñi ñëw ci jàkka ji di julli si dañuy ñëw pour la forme rek mais ku am soxna doxi ko mais moom daa bëgg doom joo xam ne bu ñëwee mel ni moom ngir téye jàkka ji ndax mu ne inni xiftul mawaliya di ñaan loolu Mariam Zakaria moo ko yar moo ko jàngal waaye dina jox Zakaria leçon boo xamante ni leçon bu doy waar moo tax nit di ko jàngal mu am fu mu la raw Zakaria ñaan na yàlla ba ni ko ah man de sama yaakaar du deñ waaye nag maa ngi bëgg a jaaxle li tax may bëgg a jaaxle may wamraati aaqir fàtte na xam na sama jabar day daa jërmel du am doom wa caala rasi shayba commencé naa am bejjaaw te góor bu tàmbalee am bejjaaw kattanam dem na te ku mu amul kattan pour mu am doom yàlla bu ko wax ni réegulu am doom ajuwul ci kattan ajuwul ci âge wastaala rasi shayba waaye nag walam aku bi duaayika rabbi shaqiya yàlla ñàkkuma espoir de xanaa kay nit la rek il faut ma wax gàllankoor yi ma yaakaar waaye ba tey maa ngi des di am yaakaar Maryam fi mu nekk ci mihrab bi fa lay fanaan benn bis malaaka yi ñëw wax ak moom borom bi na wa id qaalat al malaikatu ya maryam inna allaha astafaaki wa taharaki wastafaaki ala nisaai alaalamin ñëw ne ko Mariam mu ne naam inna allaha stafaaki yàlla day tànn na la première jigéen bi ñu njëkk tànn ci kaw suuf Mariam la yàlla ne ko malaaka yi ne ko sa borom tànn na la ngeen foog ni yàlla dina tànn kuy dem ci xumbal yi ah jigéen buy sol fiso di dangal yàlla dina ko tànn jigéen buy déglu musique buy dem baal yàlla dina ko tànn déedéet yàlla ku xam li muy def bépp jigéen buy def yaramu neen di génne sa yaram ci biti ah bu la neexee de tàng na de génneel ci biti waaye ñaar na nga ko jàpp bu ñu la nee muurul nga ni dafa tàng non non dafa tàng borom bi ne Muhammad wax leen ne qul naaru jahannama ashaddu harra nee leen muuraay bi ñuy bañ te ma santaane am na safara bu gën a tàng tàngooru àdduna xam nga jant bi fa mu nekk ni mu soree bu tàngee bañ ne la muuru nga bañ commencé di upp dafa tàng borom bi ne nee leen qul naaru jahannama ashaddu harra safara gën a tàng ndax noyyeem moo waral tàngoor bi leen fi fekk yéen jigéen ñi ba ngeen ragal a muuru safara gën a tàng law kaanoo yëf xaw yàlla bu lay tànn sa xol da koy nangul yàlla bu lay tànn da xeeb àdduna bëgg àllaaxira da ngay yëg ni man jullit laa yàlla mënoon na maa def leneen mu tànn ma def ma nit su ma nee muurul dama war a muuru te bis dana ñëw ñu muur ma par force ku fi bañ a muuru it bis dana ñëw mu muur ku fi bañ a muuru bis dana ñëw xanaa xamoo ni muuraay mooy valeur jigéen muuraay mooy valeur u jigéen de te lépp li ñu bëgg mu am valeur dañu ko muur àdduna lépp lu am valeur dañu ko muur booy jënd or doo dem fekk yu ñu camp ci àll bi nii rek di jaay de mais da dem fekk ñu dugal ko vitrine laxas ko morso bu këyit bu xonq dugal ci biir vitrine tëj nga ñëw jël ko këyit bi laxas ko dañ koo muur oto sax boo ko jëndee dañ ciy boole jilbaab oto sax boo ko jëndee ñu jox la bâche bi nga muur yaa ngi nii boo jëndee portable li ngay jëkk a def li ngay njëkk def mooy da nga koy utal antichoc da nga koo muur loo koy utal blindé ngir lañ mu gën a sécuriser wu yàlla ne la yow jigéen nañu la blindé nga gën a sécuriser wu nga ne yàlla noonoo jaru ko bal ma anti blindé nii rek moo tax borom bi tànn na Mariam ci jigéen ñëpp la tax mu tànn ko mooy ragal yàlla. te it nag képp ku ragalul yàlla bis dana ñëw nga bëgg ragal yàlla teg ci wa taharaki sa borom da laabal de xam nga ci lan la la laabal mooy ci góor ñi di la xool ngay piis góor ñi di àndandoog ñoom bu ñu waxee nga wax ree lu ñor ak lu ñorul jigéen ju am fayda day mel ni gaynde mag ñi nee nañu jigéen ju am fayda day mel ni gaynde waaye boo toppee yéen jigéen ñi naan <laughs> jigéen day neex deret day lamsal day neex a nangam xoola di nga piis a ba sa bët yi jël gaa yi jéggi la fi takk keneen da ngay ba sa bët yi jël gaa yi jéggi la dem uti keneen parce que gis nga xale yu góor yi ñu baal ma caay-caay gi ci ñoom ku ñu àndal ay fan pare nañ ci yow seen bët jéggi na la bu ñu waree génn dem sorti nga ànd ak ñoom sorti bu ñuy takk entrée la ñuy bëgg ah booy kii ñu génn ak moom sotti ba tàyyi gars yi jox ko loxo accolade non booy baal rek booy ci keneen ko yow mi nga xam ne nag yow yaay femme bi nekk l'heure actuelle yaay fii branché bi bu ñuy takki dañuy seeti ku débranché wu bàyyi kër gi ndax xam nañ ni seen yaay bugguñu fii branché. fii branché du raxas du fóot du togg sol lu xat lay nekkee yaramam bàcc ci biti téléphone guddeeg bëccëg benn mère buggul goro bu mel noonu. maire yi goro bu ñu bëgg mooy goro bu mën a togg dëxin waaw mën a mooñ mën a araw jigéen ñi la kenn mënu ko ci moo tax léegi tubaab bee leen di arawal da ngay jënd dem jënd ay foo de arawuti ba ma ne ay subhanallah suñ jigéen ñi de def nañ leen musiba bu nekk cere sax léegi si société bee la koy jaay usine moo lay jaay cere te xoola dañuy jëli mair yi ca mbus naax ak ñaar indi leen ñu mooñal leen ñu def ko machine jaay la ko indi ko ba sa koñ bitig ba nga dem jënd mbuusi cere 1500 indi togg sa ñeex jàmb ko gaa yi lekk seen biir yi daw moo tax borom bi ne ko yaa maryamu uqnuti li rabbik uqnuti li rabbik malaaka yi ne ko maryam toroxlul ngir kan tubaab bi déedéet toroxlul ngir lan col yu bees modd yu bees yi déedéet toroxlul ngir sa borom amul lu gën a am valeur suufete kanamu yàlla waaye amul lu gën a manqué valeur suuf suufete kanamu mbindeef comme yow li ngay bañal sa jëkkër nangul nga ko sa patron bi ngay liggéeyal sa jëkkër bu la nee defal nga bañ boo xëyee liggéey sa patron bu la xoolee sax nga tëb taabalam da ngay fomp mu set boo xëyee nga sëgg jox ko dossier yi boo ko defalee sa jëkkër jur doom ju baax boo koy defal sa jëkkër da nga jur doom ju baax moo tax mu ne ko uxnutii li rabbik toroxlul ngir sa borom waaye toroxlul lu mu rëy rëy rëy jullee tax mu wér na ko was judi jigéen day julli day julli julli waxuma la sax say farata mais dee ci teg ay naafila jigéen daa war a julli ba mel ni julli kaat yaral sa doom ci julli yar leen ci jaamu yàlla da ko was judi warka'i maa rakiin rukool sujootal àndal ak ñiy sujoot ndax xanaa xamoo aqrab ma yakunu al abdu wa huwa saajid jaam bi muy gën a jege boromam mooy bu sujootee da nga am jafe-jafe yàgg sa borom kër sujootal nga ñaan ko yàlla jullil buntu baangoog jarul dem ci tariyaax bi jarul dem ci kenn xam nga penku bi jàppul sujootal ñaanal yàlla kon Mariama am na makanatun azima ban makaana la mooy istifaullahi laha yàlla tànn bi mu ko tànn dara gënul rëy loolu yàlla tànn Maryam inna allaha stafaaki di jaamu yàlla guddi ak bëccëg Maryam nekkee tudd yàlla waaye léeg-léeg mu seen bàyyi ju ndaw ji ndeysaan ñaana ñaana ñaan ba pare jóg yàlla bëgg wan sakariya ci wàllu yaqin yonent la xam na ko mais yàllay doxale ni ko neex gis nga li borom bi wax fii kuy yar noonu lay mel booy yar doom léeg-léeg da koy seetlu yaay amatuñu seetlu bàyyi amatuñu seetlu lan mooy seetlu mooy léeg-léeg del xool sa doom ni muy doxee bu amee lu baaxul changé ko léeg-léeg ni muy waxee changé ko su jàngee léeg-léeg xoolal ay kayam kay ay leçon xool ko saagam xool ko léeg-léeg nga ubbi saagu xale bu jigéen fekk te loo xam ne yemul ca jàng ma rek mais waaye jur day vérifier yaay day vérifier sa doom bu demee ba xamante ni fu mu toll danga koy vérifier dina am lu mu ragal def mais nga bàyyi sa doom mu am fit fu mu bëgg a dem dem lu mu bëgg a def def ci doom bu jigéen loolu wóor da nga ko war a bañ mbokk yi borom bi nee na kullama daxala alayha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qaala ya maryamu anna laki hada anna laki hada ku am doom bind ko sa buntu kër doom bu jigéen anna laki hada ay xale bu jigéen bu amagul 18 ans ñoo indi cinquante 350000 yow papaam yaa ngi yore Nokia 1100 ci ancien lu kenn xamul yow 1100 nga yore sa doom bu jigéen ñëw indi portable doo ko ne am naa la ki haada foo ko jëlee mais non jamono bi la jigéen ñi de léegi moom ah, ah, àdduna nga bis bu sa doom yoree portable bu cher xam nga ni la ko ko jox du jàmm waaw ñun ñëpp ko xam moom kay bàyyi ji day sëgg noppi yaay ji sëgg noppi waaye xam nga ni. ban xale bu góor mooy fi jël portable 350 mille jox ko xale bu jigéen rek ci ngir yàlla am na amul sama ton sama ko jox ak sama xaritu kii ak sama nangam ak dara dañ la koo jox ngir fooye la te nag bu la ko bu ñu ko joxee yow jigéen ji ngay ku baax boo ñëwee may ko sa papa may ko sa papa boog mu yore ko mais nga bugg koo yore ñaari baat nga puus puusaat ñetti baat. ñu ne la jël taxi arrivé pay nga dem dem cosaan nawet mbaa nga dem feneen nawet fa yaa xam parce que comme joxal na la yombalal na la ba jox la lu cher war na ñoo xam ni ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa ku lekk sa dërëm sëgg sa kanam ku la lekkal dërëm rus na laa gàntu moo tax jigéen ju baax du lekk alal góor gu ko takkul jigéen bu ragal yàlla day moytu alal gu moytu leen waxi yenn maire yi wax ñàkku mbootaay la déedéet ñàkku mbon la bañal toogal melal ni nga war a mel léegi ku baax jël si la waaye booy def lu ñu jëkkati may la nga jël bu yàggee bu ñu la piisee doo ci teg baat kon fexeel ba am sa indépendance yow jigéen sa indépendance mooy li nga am na la doy li nga am na la doy noonu nga war a yaree sa doom ci mu doylu bu ko góor mayee sax mu bañ ne ko noonu baax na soxlawu ma ko lan mais tey portable yi gën a cher duggal tata yi xale yi jigéen yee koy yore yi gën a cher oto yi gën a cher ñoo ko yore kon nag nan lañuy mën a dundeek noonu nga nekk doomu baadoola yow sa papa sax day luye fi ngeen dëkk sax leer na sa papa moomu ko nga ñëw yore loo xamante ne leer na ne bu ñu ko jaayeen ngeen fay ci ñaari weer. sa papa war naa la ne an naa la ki haza doom foo jëlee lii foo ko jëlee bu la ko waxee nga woo borom ne ko lu tax nga may sama doom nangam bu dee <laughs> non dama ko ko may papa nga ne ko kaay jël ko soxlawul mais nga bàyyi yore lu mel noonu gis nga Zakaria li muy laaj Mariam an naa la ki haza lu mu fekk fekk na mariyam am lekk yoo xam ne jamono boobu amut bépp lekk fruit yi ñor. bu Zakariya ñëwee day fekk néegu Mariam fruits yi bëri te xam na ni fruits yi amul ci dëkk bi kan moo fi ñëw war ko may Mariam kon loolu dana ko jaaxal moo tax mu ne ko anna laki hada Mariam foo jëlee lii qaalat Mariam ne ko huwa min indillah allahu akbar ne ko lii kat ci sama borom la bàyyi ko a Zakariya yonent la dana xam ni moos lii dëgg la huwa min indillah ne ko inna allaha yarzuqu man yashaa bi gayri hisaab Zakariya ne tekk taxaw inna allaha yarzuqu man yashaa bi gayri hisaab yàllay wërsëgal ku ko neex ci lu dul coon léeg-léeg nga gis koo xam ne ndeysaan yàlla da koy yombalal doom da koy yomb day njaboot léeg-léeg ndeysaan nit bu di ay at mënta am doom yarzuqu man yashaa bi gayri hisaab Zakariya nag xam ne nag ndeke mbir mi yàlla mooy def lu ko neex kon leer na Zakariya dellu bi mu delloo ñaanaat boroomam ne ko maa ngi salaat sama ngëm ci yow man xam naa ni yow borom bi loo bëgg mu am dana am kon maa ngi lay ñaan boroom bi daal di ko may Yaxya mbokk yi Maryam li xam awoon ci seen aada kuy fóot dex ba ngay fóotee ji jamono boobu ay paan ak ay yooyu amul kuy fóot rekk dex ba la jigéen ñi daje ji fóot Mariam nag comme jigéen ñi buñ daan génn dañuy dajaloo ne fa ñii di jëw ñii di tooñ ñii di kii Mariam du nangoo ànd ak ñoom day bàyyi ba jour bi nga xamante ne jigéen ñi demuñu fóoti moom mu rocc ku làqu dem fóot ay bagaasam ñëwaat toog noonu lañ ko yaree noonu la nekkee benn bis Mariam ñëw na indi ay yéreem di fóot jékki rek benn xale bu ne sëmm ci wetam te musul gis ku mel noonu mu am kersa sëgg xamut nu muy def waa ji taxaw Mariam di lox di kat-kat jigéen bu musul jox góor loxo musul akolaat musuñ koo tàpp musuñ koo lëng kooku bu gisee xale bu góor day lox noonu la ñu woon suñu jigéen ñi démb kër yi dañ ko daan séparé xale bu jigéen pour mu may la ndox balaa ñëw ndox mi day tuuru fa la ñuy xamee jànq dëgg demal may diw ndox buy indi ndox mi tànk yi kar kar kar ba ni bëpp ci suuf parce xamuñu woon góor waaye tey boo nee ci kër gi tëll xale jigéen yi lay njëkk a dalal génne la seen teg toog jàkkaarloog yow na nga def naka waa koñ naka bës nangam yooyu rek la ñuy dugal sa bopp mooy kersa gi amoon démb moo Mariam mi ngi lox xamut nu muy def mënta yuuxu mu ne ko inni a'uudu birrahmani minka in kunta taqiya ne maa ngi muslu yàlla ci yow bu dee ku ragal yàlla nga ndax xamu ko te tiit na inni audu birrahmani minka in kunta taqiya maa ngi muslu yàlla ci yow su dee ku ragal yàlla nga kon góor daa war a ragal yàlla moytu di weet ak jigéen yonent bi nee na moytu leen di wéet ak jigéen ñi gor ak jigéen du ñu wéet lu dul seytaane ñetteel leen xal këriñ du jaaru dama koy faral toujours këriñ du jaaru amoo jabar bul wéet am nga jabar bul wéet bul dem ci jigéen yow dong bu ko def tuuma daa yomb de wala islam dalaa xamal la ne booy labat àndal ak nit xanaa xamoo boo ànd ak nit caay-caay gu newoon ci moom dootu ko ñeme bu newoon ceew it dootoo ñeme waaye yow rekk képp dong moom rep képp dong musiba rek ci ngeen di mujj kon li leen di aar yéen ñaar ginnaaw muslu ci yàlla mooy na ñeneen teew Mariam ne ko maa ngi muslu yàlla bu fekkee ragal nga waa ji tontu ko ne ko innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaaman zakiya ne ko man sa ndawal borom la man duma xale yu góor yi nga foog de man duma dragué maan yi man duma xale góor yi nga foog de innama ana rasulu rabbik man yonentab sa daf ma yónni li ahabalaki xulaaman zakiya ngir ma may la doom bu sell ah kawteef Mariam amul jëkkër musta gis góor góor taxaw ne ko yàlla ma yónni pour ma may la doom qaalat anna yakunu lii gulaam walam yamsasni bashar walam aku bagiya ne ko kaaw téef nga may ma doom man nan lay ame doom musuma jox góor loxo allahu mbokk yi boo gisee yonent bi góor jox jigéen loxo xaraam na ak a xam a xam xam na de wallahi képp kuy fooyee jox jigéen loxo yaa ngi fooyee sa diine bokkul ci diine islaam dafa xaraam ya Aïcha radiallahu anha ne ma massat yada rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yada mraatin qat illa mraatan tamlikuha yonente musul jox jigéenu jàmbur loxo lu dul jigéen bu mu moom bu mu takk yow xale bu góor bi amoo amoo droit bi de jox jigéen loxo dafa haram yonent bi nee na nga dajeeg mbaam xuux bu dugg ci foos ba yaram bi takk nga akolaat ko moo gën nga jox jigéen ci loxo mu jox la ko su suñuy xale yu góor nag seen muskila mooy noo c'est que dama ko xaw rus daf maa jox la ko xaw ma nu may def ma ne la tegal ñaar tegal yàlla sa teg jigéen ci këla gën a da nga dem yàlla nee na bugguma ndaw si ne la nii fa nga dem yàkkutaan dara jaru ko dafa xaraam jigéen na moytu jox góor loxo góor na moytu jox jigéen loxo na ko moytu su takk amee waxatuñu loolu mais joxe loxo moytu ko ku ñu wax bul joxe loxo nag xanaa kenn waxu la demal baali kenn waxu la akolaat kenn waxu la kon dafa xaram yonent bi sallallahu alayhi wa nee na cër yi dañuy njaaloo bët day njaaloo ñu ne ko lan mooy njaaloo bët mu ne mooy xool xool xool baaxul boo ne xirit yem ci loo wax sëggal bul xoolaat wa qul lil muminina yaxuddu min absaarihim bul xool boo xoolee rek seytaane xëcc la ndax jigéen buy ñëw day ñëw ànd ak seytaane buy dem day dem ànd buy ñëw nga jàkkaarloog moom di ko xool seytaane day changé devise am ni muy doxee dootoo ko gis moom seytaane mooy ne ci moom su la rombee di dem nga topp koy xool loolu ngay gis kon sajjal sa xef damm ko njaaloo bët mooy xool loxo day njaaloo njaaloo mooy nuyoo tànk day njaaloo njaaloo mooy dem nee na nag pëy moo koy dëggal kon bépp jigéen bu gëm yàlla bul jox góor loxo bépp góor bu gëm yàlla bul jox jigéen loxo Mariam ne ko nan lay amee doom góor mësumaa laal man mësumaa laal góor te man sax nag walam aku bariya man duma prostituée xoola ndekkee prostitution lu yàgg la ne ko man duma jigéen buy jaay boppam jigéen buy jaay boppam sax mooy joxe loxo mooy joxe loxo man musuma laal góor góor musuma laal te man duma ma man du ma jaay kat sama bopp nan lay amee doo muy question bu taaw te lim ko wax yépp mi ngi lox musuma njaaloo xaw ma luy njaaloo te du ma jaay sama bopp malaaka bi ne ko kadhaliki qaala rabbuki huwa alayya hayyin wa linajcalahu aayatan linnaas wa rahmatan minna wa kaana amran maqdiya ne ko wax ji jarul muy bëri kazaliki qaala rabbuki nii ma la ko waxee la ko sa borom waxee waaw ah, ah ordre la de te ordre moom exécuté rek kazaliki qaala rabbuki huwa alayya hayyin sa borom moo yabal te mooy dogal ci man te moo yilif te doom ji boo ko amee li naj'alahu aaya keemaan lay doon waaye nag dana nekk yërmande bu bàyyi koo ci yàlla te loolu xoolal dogal nañ ko ba pare discussion bi jaru muy yàgg ah, wa kaana amran maqdiya am na ba te day am ah Mariam amul pexe Mariam fi muy waxeeg Jibril wax bi jeexul biir bi tàmbalee métti allahu akbar ay san borom innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun lu mu bëgg rek kun fa yakun la koy amale fa saasa rek biir bi tàmbalee métti yëngu borom bi ne fa xamalathu fantabadat bihi makanan qasiya mu ëmb fi saase biir buy metti mu bërëngu daw làqu làqu xamoon na biir bi metti ni muy mel mais borom xam-xam nee bi biir bi mettee daa foogoon ni day indisposé mu daw làqu <laughs> jibril moom ma nga taxaw ah mariam day am na problème bu doon suñu jamono ñu ne ko naanal pilule waaw mën ngaa fa ba doyal naan pilil mën nga fa ba doyal xam nga ñun ñun Sénégal Sénégal daal mooy Carrefour kéemtaanu yàlla léegi damaa dégg ñu naan avortement médicalisé avortement médicalisé maanaam avortement bu ñu daganal waa assemblée war koo woote léegi daal ku toog ëmb ëmb bi neexu la war a ñëw ñu dindi ko. ah def nañ fi planning dox dox dox ñu gis ni musiba rek léegi ñu dugg ci avortement médicalisé soo ëmbee neexu la da koy dindi boo fooyee ëmb neexu la da nga koy dindi loolu mooy avortement médicalisé moo ne leen jaru ko woon jaay ngeen leen pilule ñu ngi koy jënd di ko naan waaye du tee gis nga li yonent bi waxoon xam nga li mu waxoon jaabi rek moo ci nekk na ko billaahi bu yàlla naree ci yow doom montagne bee boo ko fa defee mu ëmb da naan ñu jàngal la calcul jigéen ñi jàng Ecofam non boo calculer heure sangam boo amee rapport ëmb yàlla ne laa day fekk newuma kun de man de bu ma nee kun moom da ëmb ba ëmbaatoo ah waaw jàmm ji kay bañ a ëmb moom mooy bañ a mooy rek loolu rek mooy wax di waaye calcul ak naan pilule ak naan gelule yaa benn waaye waxoon ne sax benn jigéen daa am doom doom bi gàddu benn kii mooy yooyu ñuy def pour ñàkk am doom liir bi da ko koo indaale xanaa daf ko ne yaay am waaw waaw xale bi dafa judd indaale ko ci loxoom nii man nga loolu de mooy yaay am xanaa lii mooy yàlla nee na la maa tay <laughs> Mariam tiit ëmb ñëw xoola rek biir bi metti léegi ëmb na léegi matu ñëw na fa ajaaha almaxaadu ila jidci naxla qaalat yaa laytani mittu qabla haada wa kuntu nasiyan mansiya matu bi ñëw na Mariam tàmbalee matu bërëmu matu dafa métti moo tax bépp góor buy yor jabar war ngay am yërmande ci jigéen ba fekkee fu muy matoo wala muy am doom ah di nga xam ne jigéen ku ñu war a yërëm la ku ñu war a dimbale la ku ñu war a jàppale la xoolal tey sa xar bu doon am doom rek ni muy mel mais ku mel noonu ki ëmb sa doom tiil la sa doom kooku da nga koo war a bëgg bëgg bu mel ni bi nga bëgg sa yaay respecté ko jigéen du ko ñuy jànni du ko ñuy toroxal du ko ñuy foye mbaam bi yow nangam non jabar nga am amoo mbaam jigéen dañ koy yërëm dañ koy yërëm mais boo bëggee doxal sa tàngoor du sotti xoolal mariyam bërëmu na ba ci wetu tàndarma bi xoolal dattu tàndarma boobu jigéen ñi ñoo ciy toog bu ñuy fóot borom xam-xam yi nee nañ bi mu daggee ëpp na ñetti téeméeri at ñu ciy toog ba mu nekk bang ci lay toog di fete nii ñoom ña nekk ci jamono jooju yëpp ba loolu di dagg fekkewuñ ko mariyam bërëmu ba dal ci. yaa laytani mittu qabla hada aka neexoon ma dee balaa tay diw am na doom amul jëkkër torox la léegi nag boo waxee ñu ne <laughs> loolu de Lagos la walis yëpp ma nga ca ma ne xanaa ci sa walis la nekk jigéen day muytu gàcce rusal kër gi maa fi njëkk indi doom bu amul baay jigéen da koy rus maa njëkk am doom ju amul baay jigéen da rus rusal tiital ñaaw na te way wudul dañ la boo demoon ba màggatit loolu du dañ Mariam ma nga naan ak a neexoon ma dee balaa tey wa kuntu nasiyan mansiya ak a neexoon ma nekk lu nuy fàtte Mariam dootul exister ci kaw suuf ak neexoon waay waay lii gàcce la ma nar a gàddu lii di dellu ci kër ga di yóbbu doom ñu naan ma foo jëlee doom ah loolu mënuma ko di jooy di jooy ba yàgg ndeysaan jibril wax ak moom da ko laa tahzani qad jaala rabbuki taxtaki sariya ne ko jarul ngay tiit jarul ngay doom ngay jooy yàlla defal na la secret ci sa suuf yàlla defal na la mbir yàlla defal na la loo xamante ni moom rek moo la ko defal léegi nag preuve bi ma lay wan ni lii mbiru yàlla la mu ne naam mu ne ko wa huzzi ilayki bi jiz'i naxla tasaaqat alayki rutaban janiya ne ko xoolal yomb na première lay bi mooy dattu tàndarma bii wéer ci sa loxo léegi mu nekk garab sa kanam am doom sa kanam bu ko defee ku ñëw ne la ku la jox lii nga ne ko ki def lii waaw loolu rek la wax bii tekki Mariam bërëmu loxoom laal dàttu tàndarma mun a jabeet nekk garabu tàndarma fi saase meññeent yi ñu ratatatat wadd ci kanam Mariam ndeysaan tu saqit aleyka rutaban janiya nee ko bu ko defee doom yi dana wàcc meññ ñor ah Mariam gis ko na mu ne ko wa kuli washrabi wa qarri ayna xoolal Mariam jëlal ci tàndarma ji lekkal ba suur sëggal ci dex bi naanal sëlmul am nga lay xam nga lu doon métti nga am doom preuve amul preuve am na léegi jarul ngay sonal sa bopp mbokk yi tàndarma kemaan yi ci nekk bëri na lool lan moo tax Mariam am doom ñu ne ko lekkal ci tàndarma bi mais du du lu simple ah. jàngat mu bari moo ci nekk tàndarma dafa bokk ci garab yi nga xam ni li mu denc ci ay njëriñ yàlla rek moo ko xam am na ay njëriñu wér gi yaram yu dul jeex lu jëm ci wàllu santé tàndarma kenn xamul keemaan gi ci nekk gis nga tàndarma dafa riche en énergie beneen bi gis nga ku néew kàttan di ko lekk moo xam nit koo xamante ni dafay néew kàttan ba buy dox day mel ni kuy daan même xale bu ndaw parental bu néew kàttan dañ ko koy jox ndax tàndarma matière yépp daf cee nekk am na vitamine C B1 B2 yépp am na beneen bi mooy tàndarma am na cuivre magnésium phosphore yi ci daje ci ay mbir dafa bari waaye xool leen li gën a doy waar tàndarma day neeyil yaram yaram bu dee da koy dundalaat tàndarma day raxas rein gis nga rein xam nga luy liggéeyam mooy tame buy lay li war a jàll ci yaram bi nit ki buy lekk tàndarma da koy dimbale ci ndox moomu muy lay day rafet maanaam li ma bëgg mooy da koy purifier moom tàndarma daf koy def beneen bi mooy tàndarma dafay may pancréas doole te pancréas mooy sedd wàll woo xamante ne du jëm ci suukar gi demee noonu beneen bi ci des mooy tàndarma dafay calculer tension ba mu yem nit ki boo amee tension buy yéeg buy lekk tàndarma da koy régler ba taux normal bàyyi ko suy am tension buy wàcc da koy régler mu yéeg ba am taux bi mu waree mu yem tàndarma rek mooy def loolu bu dee da amee tension buy monter del lekk tàndarma boo amee tension buy wàcc del lekk tàndarma na ci tàndarma day may jigéen kattan pour buy am doom mooy tàndarma day gaaw a dagg dret bu dee deretu jigéen bi nga xamante ni dafay am lu ñuy tuddee règle douloureuse saa bu demee ba jub session ñetti fan na commencé di lekk juróom-ñaari tàndarma par bés suba gi na koy lekk juróom-ñaari tàndarma par bés ba dugg ci cycle am na koy commencé lekk gis nga ni mu doon amee métit ci jamono bi muy indisposé day gis ni loolu dafay diminuer wu beneen bi jigéen ji ëmb di lekk tàndarma suy am doom puus da koy yomb puus xam nga jigéen buy am doom dafa war a am kàttan kàttanam moo koy may muy puus pour xale bi juddu tàndarma bi da koy may feer bi da koy may te gis nga fer pur ci tàndarma la nekk lépp lu ñu soxla ci fer 100 pour cent mi ngi ci tàndarma moo tax jigéen bu ëmbee di lekk tàndarma dara gënu ko ci moom dara gënu ko ndax dalay may deret day raxas ndox mi day dalal yaram bi dalay may poids dalay may kàttan beneen bi bu fekkee sa xel dangay gaaw a fàtte kuy naax wala ku xelam dul jàpp booy lekk tàndarma moo ci gën a gaaw booy lekk tàndarma dende par guddi gu nekk nga lekk ñeenti tàndarma naan benn cuillère kafe huile d'olive da ngay jàng loo jàng du mokkal da ngay gaaw fàtte xel mi dafay dem wala dépense dalaa sonal ba lu ñu la nga fàtte ko waaw ah, xam nga góor ñu bari seen xel yi demut dépense moo ko yóbbu xoolal lekkal ñeenti doomu tàndarma naanal kuddu kafe ci huile d'olive boo koy def léegi sa bopp bi macha allah loo jàpp dootoo ko fàtt tàndarma da koy def beneen bi tàndarma dafay raxas yuur cerveau bi day day day yeewaat cellules yi dee yi ci cerveau bi yépp da koy yee beneen bi tàndarma day may kattan góor boo xam ne éjaculation précoce da ko yomb dafay gaaw a day lekk tàndarma beneen bi mooy tàndarma dafay may góor kàttan kattan bi muy soxla ci sëy am na góor ñoo xamante ni kattanu sëy am nañ ko mais bu ñu jubee sëy dañuy néew doole néew doole seen cër boobu taxaw bi mu war a taxaw kattan bi mu war a am tàndarma moo gën a gaaw ci may la ko kooku del lekk tàndarma ak meew di lekk tàndarma di naan meew beneen bi moytu nag tàndarma doo ci lekk ni mu amee njëriñ la amee ay lor beneen bi mooy tàndarma dafay dimbale nit bu fekkee am na feebar bu mu xamul ci moom nay lekk tàndarma di naan meew waaye bi gën a gaaw nag ci dootoo fàtte même bu dee sa doom yi ndaw yi mën nga leen ko defal mooy jëlal tàndarma boo jëlee tàndarma génne doom yi soo génnee doom yi tàndarma bi ci boppam danga koy jël nga boole ko ak lem teg ko ci taal ba mu bax nga bati ko def ci meew comme confit xale yi di ko naan seen xel yi dafay dund xale bu yàmp day am yaram jigéen bu néew doole day am yaram maanaam jigéen boo xamante ni moom leer na ko ne moom dafa bëgg am jëmm jëmm jëlal tàndarma bi nga génne doom yi boole ko ak lem teg ko ci taal togg ko ba mu fuur bati ko ba mu mel ni comme confit nga def ci lem loolu nga di ko naan léegi nga jekki incha allah bu la góor gi xoolee ne ay yaa macha allah waaw loolu xale bi bu koy def moom it dafay daal kàttan beneen bi bokk na ci tàndarma day wàcce cholestérol cholestérol ci yaram tàndarma da koy dindi kon mboolem feebar bu ñuy tuddee feebaru xol tàndarma da koy réglé mboolem feebar bu nekk feebaru xol tàndarma da koy réglé léegi nag ëpp gi baaxu ci encore moo tax toujours xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa nee na kuy def saa xëyee nga lekk juróom-ñaari tàndarma poson du la jàpp njabar du la jàpp bët du la jàpp feebar du la yomb tàndarma chaque jour man tasabbaha saa boo xëyee nga lekk juróom-ñaari tàndarma bët du la jàpp njabar du la jàpp poson du la jàpp beneen bi gën a neex ci tàndarma mooy kuy lekk tàndarma shayatin du la ñeme shayatin yi ñemewuñ tàndarma ku koy lekk duñu la ñeme bokk na ci nag léegi mooy tàndarma su fekkee danga nga jël programme di ko fajoo wala nga di ko lekk moytul di ko lekk moom rek pendant une semaine bu fekkee da ko lekk moom rek pendant une semaine day constipé loo nit kon boo koy lekk da koy boole huile d'olive wala mayonnaise wala beurre noonu la ñuy lekkee tàndarma mais doo ko topp lekk noonu ndax pâte la pâte bi boo koy lekk te li gën a doy waa tàndarma am na taux sucre mais sucre am du sonal diabétique sucre am sucre du sonal diabétique beneen bi lan ban xikma moo nekk ci nga woor ba pare dogee tàndarma boo wooree dangay ngay ñàkk kàttan da ngay soxla ndox dangay ngay manqué suukar moo tax ki woor ñàkk kàttan soxla ndox manqué suukar ndoxam manqué su defee sport haut rek mën na ko rek loolu moo tax nga gis yenn sportif yu en haut niveau yi nga dégg ci weeru koor dañoo wooroon football daanu crise piqué de wala nangam parce que boo wooree da ngay manqué ndox da ngay suukar yooyu yëpp bu dog jotee yonent bi ne la lekkal tàndarma tàndarma boo ko lekkee day remplir ndox mi remplir suukar bi joxaat la glucose kon yi nekk ci tàndarma ci ay mébét kenn xamul nu mu toll moo tax jibril alayhi salaam ne ko huzzi ilayki bi jiz'i naxla tasaaqat alayki rutaban janiya tegal ko ne nag fa kuli washrabi wa qarri ayna lekkal naanal ba doyal léegi nag ñibbil fa imma tarayinna min albashari ahada fa quuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya ne ko boo demee bañu sonal la ku la laaj ne ko dama woor ci wax lan mooy loolu mbokk yi woor nekkul pour xiif rek de dañoo woor pour suñu làmmiñ yi woor waaye mbokk bul woor ba pare di jëw bul woor ba pare di fen bul woor ba pare di nekk ci deru jàmbur yi bul woor ba pare di déglu musique bul woor ba pare di seetaan lu haram moytul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sawmu saalihin mooy koor goo xam ne sa bët day woor bakkan yi woor nopp yi woor loolu dañ ko soxla ci koor loolu moo tax yonent bi ne man lam yada qawla duur wal amali bi fa laysa lillahi haaja fii an yadaa taamahu wa sharaabahu képp koo xamante ni boo wooree doo bàyyi wax lu sa yoon nekkul doo bàyyi jëw doo bàyyi dugg lu sa yoon nekkul nee na yàlla soxlawul sa ñàkk a lekk soxlawul sa ñàkk naan mbokk yi Mariam nee nañ ko boo demee ku wax ak yow ci mbedd mi ku la laaj bu ko tontu Mariama uuf doomam di dox nag mu tam ni la ko ah yee asuni ibaadu bee am dooma moo tax ndeysaan képp kuy dund sunna bu yeboo rek nga moytu bu yenn musiba yi bu la dalee dootoo xaj ci koñ bi de mais rek paa yi ñëpp no yenn no day defi di jaay di malaaka la ah, mu góob nangam nangam parce li ngay def comme munuñ ko duñu la ko yéene moo tax Mariama jàll gars yi nag ko na doom waaye ma foo ko jëlee Mariama ne cell di leen seetaan inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya mbokk yi Mariam ñëw ba seen kër faatat bihi qawmaha tahmilu qaalu ya maryamu laqad jiti shay'an fariya ya ukhta haarun ma kaana abuki imraa sawin wa ma kaanat ummuki bagiya ne ko ah mariam indi nga mbir mu gàccelu de mariam foo jëlee lii indi nga mbir mu gàccelu de ay yow sëru haarun Haarun dañ koo dàkkantalee Haaruna rakku Moussa magu Moussa rakkam Haarun boobu dafa mënoon jaamu yàlla dafa doon takk jàkka comme Mariam daa mën a jaamu yàlla takk jàkka na ñu koy askanale Haarun ne ko yaa uxta Haarun yow mii sëru Haarun ci jaamu yàlla tey mi ñu la yaakaaree nga indi doom ah yow de def nga musiba ne ko pourtant de sa yaay nekkul woon jigéen ji oyof sër de daawul jaay boppam de te sa papa daawul topp jigéen ñi. kon bépp jigéen bu ëmb ci biti xas nga sa yaay xas nga sa baay saa boo génnee ci biti ba ëmb rek mooy tekki na ne sa yaay baaxul woon saa boo génnee ëmb tekki na ne sa baay baaxul woon moo tax ñu ne ko maa kaana abuki mraa saw in wa maa kaanat ummuki bagiya mbokk yi jigéen lan la noonu yàlla yu bëgg ci jigéen li ñu bëgg ci yow mooy nga génn li ñu bëgg ci yow mooy nga dugg ci showbiz bi nekkal waykat solal jiin seere tàppantee la góor yi léegi suba ñu may la ambassade boo fi defee benn jingal yow jigéen léegi demal ambassade États-Unis ginnaaw suba ñu dóoral la kaset demal fu la neex yow nag gàddul sa sikkim dem bëgg bëgg visa nga xool danga nga fa fanaan ay at kenn faalewu la parce que tubaab bi yàq jigéen la bëgg tey lépp lu ñuy def jigéen lañ koy def loo publicité yi théâtre yi xeesal yi génn yi bon yi kon yow jigéenu jullit boo bëggee bokk ci ñi baax il faut nga tëj sa bopp il faut nga tënk sa bopp adduna bi yàggul am na lu nuy xaar mooy bàmmeel ginnaaw bàmmeel yawmal qiyaam noo ngi yaakaar yàlla yóbbu ñu ajjana yàlla nañ ko yàlla defal kon maa ngi dénk sama bopp di dénk bépp jigéen nañu am xasma nañu am kersa ci seen diine am ko ci seen borom ngeen lu jàng alquran ngeen xam ne adduna bi yàggul jigéen bu la fi romb ak oto bu rafet lool ak yaram bu la ci biti gannaaw ëllëg dana ñëw ci yow ne la ñaanal ma parce que xam na li mu nekk alal la waaye bu jàkkee jaw jëm si yow kon daw leen ngeen jëm seen borom yal na yàlla defal ñu dégg topp defal ko ñëpp incha allah yal na yàlla aar ñu aar leen wasalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu. Ah, alhamdulilah wax dëgg ñoo ngi sant borom subhanahu wa taala wa sallam di wax di jaajëfal oustaz si thème bu am solo bi mu doon traité yaakaar naa ne lépp li nga xam ni wax na ko ay dénkaane yu am solo la ñu des mooy ñu jug tax suñu saaku di sol suñu tubay tax sol suñu dàll dem jëfe li nga xam ne moom mooy dénkaane yu am solo yooyu lépp lu si wax rek yan yenn yi dund nañ ko ñoom koy gis mu des mooy li nga xam ne mooy suñu diine moom la ñu may ñu jëfee ko ñu jëfee loolu lépp suñu diine tere ñu bàyyi ko tey waaw ñu wéyoon waxtaan bi ba tey daanaka am na ay question yu fi jotoon ak xam naa dañ koy jéem a tànn yenn yi nga xam ne moo dëppoo thème bi jëm ko jox gaal oustaz mu tontu si yooyu ñu si des nag ñu xaar ba beneen jour de oustaz ki day laaj ndax bon ndax Jésus am na doom ndax Jésus am na doom ndax si eh, Mariam dafa nekkoon fi nga xam ne dafa sange dañ ko takk mu ne ndax am na yeneen doom tamit gannaaw loolu. ndax Jésus am na doom. waaw maanaam Isa ndax am na doom. Mhm. ah loolu kay xam nga ni Isa amul doom. ndax yonent yàlla Isa jotul takk jabar ci dundam moom ak eh, Yaxya. Mhm. kenn ci amul jabar Isa génnul àdduna mi ngi ci asamaan bi di ñu xaar te dana ñëwaat incha allah 33 ans la amoon bi muy dem te day dellusiwaat. del siwaatam nag li ci di bi mooy bu del siwaatee lépp lu nekk mbaambuur dana ko fi jëlee lu nekk euh, croix dana ko fi jëlee kon del siwaat Isa la ñu xamee doom amu ko woon incha allah rabbi fii day laaj ndax jullit mën na takk chrétien bu chrétien hmm. maanaam si yan condition la koy mën a takk waaw jullit bu góor mën na takk chrétien mais contraire bi mënta am hmm. jullit bu góor mën na takk chrétien mën na takk juif takk bi nag ñu ci jublu woon mooy mu takk ko ngir jéem koo jubbanti dugal ko ci diine waaye nekkul woon takk pour takk rek ndax xam nga takk pour takk rek te ngeen war a am ay doom war a am njaboot kooku moom mooy fexe woon ba want comportement bu baax ba mu tuub ba say doom mën a nekk ci diine erreur bi mooy am na jullit ñoo xam ne am nañu jabar chrétien mais daa mujj seeni doom dañoo ko ñii nekk chrétien ñii nekk ay jullit mais loolu nag baaxul nekkuloon objectif bi incha allah aywa kii dafay laaj ci wàllu jigéen ba tey nee ndax jigéen day gis yan jigéen di def rasta ndax rasta boobu baax na si jigéen jigéen ñuy def. rasta rasta ah, jigéen ñi mu ngi ñuy def rasta lan la ñuy def du bopp neen. te xam nañ loolu baaxul kon kay rasta amul njëriñ. incha allah mu ne ndax kii baay bi nga xam ne dafa bàyyi ak ja euh, jabaram doomam ndax baay boobu am na wàllu si ay doomam. baay boo xam ne dafa bàyyee jabaram ay doomam ndax am na ci àq. Mhm. am na ci àq kay. Mhm. même bu dee mi ngi sëy ak soxna si am na àq moom it ci yar bi ndax day dimbale yaay ji ci yar. Mhm. ni mu koy dimbalee moom it di wax di jëf. fexe ñu jàng fexe di leen jubbanti fexe dimbale yaay bi ci yar bi mhm. mais bu fekkee nag dañoo tas rek mu bàyyee yaay ji xale bi loolu musiba la am na ci àq bu mag a mag a mag mhm. bu fekkee sëyitul ak ndaw si yar bi da ci am àq mooy da koo war dundal mhm. da koo war a wodd da koo war a utal fu mu nekk ndax moo yoroon jigéen ji am ak moom doom sëyituñu kon dund xale bi moom la war insha allah mu ne ndax ki jigéen buy buy nàmpal ndax day day fay après weeru koor. ndax jigéen buy nàmpal day fay weeru koor jigéen bi nga xam ne day nàmpal te bu nàmpalee loru kooku du woor du fay incha allah moog bu ëmb ñoom ñoo yem. moom day mooy day julli waaye du am xusu ci julli bi jamono bii de julli am xusu man ak yaw ak keneen a dem yombul tënku rek la xool fa ngay jullee ragal yàlla bàyyi xel julli gi loolu rek moo lay may xusu incha allah. conseil bi may jox waajuru jigéen yi ak coriñu xale yi mooy ñu ragal yàlla ci doom yi. te xam ni doom yi yàlla da leen koy laaj yawmal qiyaam waqifuhum fa innahum mas'uluun kon sa doom bu jigéen bu ko seetaan muy sol yére yu bon bu ko seetaan muy sol yëre yu xat bu ko seetaan muy génn di ànd ak ay góor loolu boo ko seetaanee ëllëg yàlla dana la xaar ci loolu bëri na way jur yi naroon dem ak mais dañ leen a waat lan moo tax mooy dañoo sàggan ci yar seen doom. daan na def taraawe chaque bi ndax daan na def taraawe chaque jour daan na ko def kay. yonent bi daan def taraawe léegi nag ndax taraawe yi jamaa la doon def wala déet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko ñetti fan sahaaba yi anteen teg léegi nag mu bañ ñi bu ko continuer dañ koy farataal mu nekk farata ñun loolu moo tax mu mujjee yem ci di ko defee këram. ba mu yemee ci di ko defee këram nag sahaaba yi ñoo ko continuer Aboubacar Umar Ousmane. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sama sunna ak sunna yi samay xulafa arachidin loolu moo maye ni sunna bu wér la nit war koo def incha allah léeg-léeg nga dégg yi nga xam ne ay nit yu suufi la nekk ci rajo yi naan tarawih bi daal ak nangam dañoo xamul sunna moo tax mais baka def na ko Umar def te yonent def na ko ñetti fan yonent lu mu xës ba def tey jeex na lu ñu war a def la ginnaawam saxaaba yi def na ko kon lu wér la lu ñu mën a def la incha allah. lan mooy différence bokkaale ak différence bokkaale ak riba bokkuñu bokkaale utal yàlla ndedd la riba lekk lu la yàlla tere la loolu mooy seen différence benn ci nag baaxul ndax kuy bokkaale bu dee dem àjjana kuy jëfandikoo riba bu dee tamit mën naa bañ a dem àjjana. lan mooy riba ci tënk. riba daal bu ñu la ko doon tënkal mooy alal bu am intérêt moo xam ci boro la walla ci jëflante maanaam dem banque leb fa xaalis. xaalis boobu am intérêt dafay dugg ci riba riba yi dana am ci jaay ak jënd maanaam lii lii laa koy jaayee mais bu dee kii lee laa ko koy jaayee loolu dana ci dugg maanaam bunti riba yi dafa de mënuma ko koo tënkal nii rek ci benn waxtu dafa bari lool lool xëy na day laaj ñu def ci benn jotaay wala ñu jàngale waat ko incha allah rabbi macha allah su waa tàndarma yi kay jeex na tàndarma kay tàndarma yëpp la dafa am ci biir tàndarma ñaari façon gënante lañ tàndarma am na bu ñuul am na bu jaune am na bu rouge am na bu vert mais tàndarma la yonent bi wax yonent bi muy wax nag ajwa tàndarma Madina mais Cheikh Bun Baaz nee na façon tàndarma yëpp mën nañ ko yëpp mën nañ léegi nag bu ñu la waxee meew bi mooy meew boo xamante ne meew bu jóge ci nag la wala meew boo xamante ne du doon meewu sunguf yooyu moom yëpp yëpp baax na pour jëfandikoo ko incha allah kon nag façon tàndarma bu ci nekk mën na ko mais bi ci gën moom mooy bu tooy bi moo ci gën incha allah. lii moom la boppam day wax si si ginnaaw yaani al biiraan tey moom euh, su wax si ñoom doom bi su ñu nee dina ko wax a mbokk yi ngay def lu baax te su ko waxee moom la la war mu ne papaam day jëw ay dëkkandoom te bu ñëwee papa moo ko mën a ko bàyyi bàyyi loolu papa ji mer papa ji xamul rek moom kay na fexe di ko ko wax toujours papa ji mer rek ndax loolu du nekk bàkkaar ndax li papaam def moo gën a bon mooy jëw ay dëkkandoom soo ñëwee da ko bàyyi ragalal yàlla bu la saagaa wax la lu nekk yow war na laa saaga mais yow li nga ko wax ragalal yàlla war nga koo wax loolu dara nekkul incha allah nekkul ñàkk teggin nekkul bon waaye sa papa incha allah jazakum la xeyran yàlla na yàlla aar ñu wa rahmatullahi wa